dugg ci làmb pour dimbali sa waajur mbër yi ku ci engagé wu mais bu leen mais takk ngemb nekk ci diggu géew soixante mille spectateurs pour pañ yi di mel ni mbàccum gerte mais dafa yomb saa yombul problème bi na six de préparation gars yi yaakaar ni ñu ngi at nag li ci biir ngor lañu ñu sut dañu ñu ngi sant yàlla mais nag am na loo xam ne tey li ñu fi teew indi fii tey mooy dañu gis ni état bi saay gars yi nañu waxante dëgg mille milliards deux cent francs mille milliards la état bi tey ci loxo di ko séddale ñu sentir ni mbir mi am na ci discrimination am na ci parce que tamit ñun les artistes suñu ay xarit lañ suñu ay copains lañ parce que quand on dit dans la parfois dañuy dégg tey notre grand notre fierté Youssou Ndour lu mu wax lu mu wax dugal ci mbër jox na mbër cër lool lu mu wax boole ci mbër dañ koy wooye la des l'ami des lutteurs loolu dañ koy accepter mais nag dans ce cas bu ñu gisee ni stigmatisation am na ci affaire yi ak discrimination parce que dañ koy dañ koy dañ koy déplorer parce que bu ñu état bi am na mille milliards yoo xam ne tey problème mu Covid 19 bi la. mille milliards wala deux mille milliards. mille milliards. ci mille milliards yooyu loolu sport l'ensemble du sport xam lu mu ci am un milliard trois cent. ci sport laa la wax de mille yooyu. mille milliards yi maanaam sport sport un milliard trois cent la ci am. ñu jël 2 pour cent jagle ko làmb 2 pour cent mooy 27 millions. 27 millions yi promoteurs yi lañ ko séddale. ñu engagé wu woon engagé woon ay combat ba pare su mag lañ suñu ndijaay lañ suñuy xarit lañ mais loolu tamit bu ñu ko joxoon mbari du bu ko joxoon mbëri duñ ko laal. barke Cheikhou Tidiane duñ ko laal. 27 millions de pour cent la ñu séddale promoteurs yi comparaison. avec la culture ñu comp ñu def comparaison que nag bu ñuy def ñuy def bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy comparer suñu bopp suñu mbokk artistes yi parce que làmb dafa bokk ci culture teguñu leen bët suñu xarit lañ suñu am ji jàmm lañ fii ku fi nekk mbër bu fi nekk am nga xaritu musicien parce que dañu bokk mbécc bi mais nag ci ñoom lañu ci ñoom la mën a jël exemple ah ñu jël 3 milliards bi nga xam ne bi corona bi duggee ci dëkk bi ñu jagleel leen ko 3 milliards fan yële passé ñu yëngal gaa jox leen 2 milliards cent muy 5 millions 5 5 milliards 500. lamb 27 millions. lamb 27 millions loolu. loolu mënuñu ko concevoir loolu mënuñu ko maanaam loolu loolu tey loolu loolu ñun suñu xol yi man man damay tëdd di nelaw man sama suufu xol bi di metti non loolu dafa na loolu loolu amul ku mu loolu dafa metti parce que tey discrimination boobu warul am ci état bi li tax li nag li ñu fi dajale tey c'est juste pour message bi dem ci nga ki nga xam ne tey moo ñu bokk njaboote xaaral wax na ko léegi président Macky Sall mbër yi dañu contribuer lool engagé wu ak détermination ci campagne am bu toogee tey nekk la président de la république ñun dañ cee tax rib tey campagne yi bi muy am ku war a jaar biir géejawaay boo lonkoowul ak Balla Gaye lonkoo dara Amadou Ba bu bëggee jaar biir parcelle yëngal bu bokkul loko Modou Lo gis dara parce que loolu nag yàlla moo ñu ko jagleel nag ah Seydou Gueye bu ma lonkul ci loxo biir Medina wala Bamba Fall ak Cheikh Ba lu ñu gis dara ak yeneen mbëri fi nekk ñi yëpp ku ci nekk kay def politique ca quartier bi Pikine nag Pikine bu ku lonkul Boy Niang wala Eumeu Sène wala Ama Baldé gisoo dara kon nag dans ce ñun nag il faut ñu xam ñu ñooy ñan il faut ñu xam ñun ñooy ñan te ñu bàyyi kuñ ci dëkk micro ngay raay raayal parce que am nga ay xarit xarit yooyu ñu ngi lijjanti seen boppoo ñu ngi lijjanti seen bopp kon boog li ñuy déplorer di ko wax le président de tous les sénégalais ñun say njaboot lañ ah ñun say njaboot lañ te sonn nañu sonn nañu trop suñu ay rakk. parce que tey tey macha allah yàlla suturaal nañu tey ah ñun ñi nga xam ne li Balla wax sànq suñu ay pàpp ñu ngi lal tëdd ci lal hôpital bi ñoo xam ne tey ñoo xale yoon bi les boy bambara. les Mbaye Guèye les Robert euh, les Papa Kane ñooñu suñu ay papa lañ ñooñu tey tey lu ñu am war na leen ko sante lu ñu am war na leen jox àllarba ñooñu ñoo xàll yoon bi tey yàlla dogal nag ba ay génération Moustapha Guèye ñoom Taïzen ak ñoom ñëpp jaar ñu ñu la ñëw kon boog am na loo xam ne tey bu làmb amee jafe-jafe ñu ñi ñu yëpp genn wàll ñu ñu yàlla ñu ñëw fi yëpp tey làmb teral nañu sagal nañu parce que lañ doon mébét ci làmb ak vis-à-vis ak suñu njaboot dimbali suñu yaay yóbbu suñu yaay màkk tabax ay kër jël suñu ay doom dugal leen ci école yi gën a cher ci Sénégal yàlla def na ko bu fi yemoon sax mu neex mais nag yaa doo frère derrière suñu ay rakk suñu rakk yi tey làmb bu ñu ko bàyyee mu soxe li ñu defal ñu tey nii ba làmb ñoom Balla Gaye ak ñoom ñoom Moustapha ñoom Bal ñoom Tyson ak yooyu li ñu def tey ba ñu am tey ci soow bi naan ci bu ñu bàyyee làmb yàqu suñu rakk yi du am sax lu ñu lu ñu am sax sàkket loolu la ñuy bañ nag loolu moo tax tey ñu engagé wu jóg pour association nationale des lutteurs du Sénégal créé wuñ ko nekkuñu fi unique dañ fi nekk uniquement pour défendre intérêt commun de la lutte loolu mooy suñu ëpp loolu rek moo ñu tax nag solution mënut a solution mënul ñàkk làmb ji mënuñu ko upp tëj ko lépp loo gis ci àddina mais yeneen yeneen mais yeneen mais yeneen sport yi ñu ngi ubbi course épique démb la ubbi artistes yi am na ñuy def huis clos bërki démb am na ku ma na ma di am na ay artistes yu yu yu yëngal ci ay salle. championnat Sénégal dañ ubbi bientôt. le 2 waa léegi ñun. basket le 2. basket le 2. kon ñun fuñ fuñ fuñ nar a jëm ñun. avant waxu ubbi. Ah. li nga xam ne dañ ko amee ci coronavirus bi. non dañuy réclamer état. discrimination boobu ñun ci dëkk bi lañ bokk loolu ça n'a rien à ak làmb bu ubbi ak làmb bu ubbiwul loolu bokkul de bokkul loolu bokkul différence dafa am dañ leen ñun làmb ji dañ ko tëj làmb ji ñun am nañ ay proposition parce que yàlla daf ñu may ñuy toog di concert suñu biir mais làmb bu nekkee stade bu am soixante mille spectateurs mais dañ ko dañ ko dagg ko ci digg soixante mille spectateurs dañ jël moitié bi wala tiers bi système per view bi am na ça existe ñu dooleel ko lamb dafa état la làmb ji état da ko war a subventionné état jënd droit état bu doon jël cinq milliards de ko injecté chaque année ci làmb loolu du ñu am problème kontaan nañ leen fàttali ni avant arène nationale bii arène nationale bi avant muy am ci la lamb gënoon a dox kon arène nationale mënul ñëw nag parce que dafa amul parce que dafa amul mesure d'accompagnement ah non amuñu woon esat amuñu woon arène lamb di dox amuñu woon arène national lamb di dox ba journée yi ay mercredi promoteur di jël les mercredis et les vendredis mais arène nationale mënul am lamb lamb du am parce que benn de un de un ni promoteur yi dafa jaaduwul c'est un bijou c'est un cadeau nan lañ ko mënee un promoteur bi nga xam ne tey xamoon nan la def ay coono mais promoteur ñu war leen ko jox gratis waruñu fay dara waruñu leen jox promoteur bi ñu jël arène nationale bii tey waruñu leen ñu joxe dara caution ci dara à la base dañu xam nga cadeau la kon dans ce cas promoteurs yi war leen leen allégé yu bari accompagné parce que da ñu jël jël arène national teg ko rek te amoo ay mesures d'accompagnement may mais fii y a des sociétés état bi dafa war a dugal loxoom ci làmb parce que làmb industrie la làmb ñi ciy gañe làmb ñi ciy gagné dafa bëri yéen ñii presse yi comme maa Balla Gaye bombardier bu defee ñaari weer mais de non seen affaire day baax non làmb ñi ciy gagné amul macha allah loolu moo am mais tey dama na la làmb industrie la jaaykatu gerte caaf transport les sérigraphes les gars yi defar t-shirt artistes yi gars yi dañuy génne single ci ko combat Bombardier Moustapha Gueye yéen a koy rappelé tëggkod sabar yi les transporteurs gaa yi def flocage t-shirt xam nga la sëriñ si ñi nga xam ne mbëri ay ball ay 5 millions di millions lay fay sëriñ comprendre sëriñ si gëj ñu laal yi uude yi kon ça veut dire que la te état dafa war état dafa war a dugal loxoom ci làmb état dafa war a subventionner la lutte euh, jël ko du sarax yi dañ fàtte loolu am na benn booy boo xam ne ñoo bokk koñ chaque jour li may wax mooy mais grand kañ ngay combat dama gëj laal ay affaire laadum parce que ah man des fois bu ma amee ci xaru laadum yi laay def di saraxe ah mënu ma mais grand ceebu laadum kan am mën a ko combat amagul corona bi ah, nag yi gars yi nga waa waa seeraas waa dañuy yàkkamti combat am parce que lamb industrie la kon nag il faut que état bi xam ne ñun ay doomam la ñu on est des dans ce pays te lu ñu nekk ñu nekk ci Macky Sall ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko fal. contribuer nañ tey dañu contribuer dañ ay coono tey mu nekk le président de la république kon boog tey ñu ngi koy. ñu koy interpellé. li ko wax ni ñun njabootam lañ bokk ci njabootam lañ bokk na gestu làmb bàyyi xel. ay njabootam parce que sonn nañu lii nag euh, dañu ñëw rek pour alerter parce que tamit Sénégal yi dañu ñëw rek pour alerter kilifa diine yi dégguñu le monde de la lutte dégguñu sénégalais yi dégguñu xam ne ñu ngi sonn nañu. addina bi dégguñu xam ni mbër yi am nañu problème te problème bi xam nañ ni corona bi moo ko sabab yëg nañ ni corona bi mi ngi ci dëkk bi yëg nañ mesure mesure barrière yi ñu ngi koy jël waaye nag il faut que nag il faut que état bi bàyyi ñu xel bu baax a baax a baax.